booy jàng ci njëlbeenu suratul anfaal wala ci njëlbeenu saaru almominoona ak ca laayay waa ibadurahman wii yi mel noonu na ngay xam melowee bu baax a baax ndax yàlla tagg na ña mel noona yow itam nga jéem a melowoo seen melo ya ba bokk ca tagg yooyee yépp melo yoo gis nag yàlla di ŋàññ di xas ña nga xam ne ñoo ko mel nga fexe rekk ba melo yooyee nga sori ko dara dara bañ la caa laal dara bañ la caa taq ndax nee na sunu boroom kat boo gisee mu wàcce alxuraan dara taxul lu may bëgg rekk ñi nga xam ne ñoo gëm ñu xam la ñu war a jàpp ak la ñu war a bàyyi dañoo sopp booy jàng alxuraan ba àgg ci laaya juy wax yërmande yàlla nga bég te ñaan yàlla boole la ci yërmande joojee soo àggee ci laaya ji wane mbugal nga tiit te ñaan yàlla musal la ci mbugal moomee soo àggee ci laaya joo xam ne laaya ñaan la nga ñaan toroxlu te yaakaar yàlla may la loolee soo déggee ndigal mbaa tere nga jàpp ne yow kat yow la ñuy digal ndigal lii yow la ñuy tere tere bii boo déggee yàlla dige lu neex mbaa mu tëg ko ci lu naqari nga jàpp ne yow kat yaay ka ñiy dig yaay ka ñiy tëkku noonu rek muy wéy sëriñ bi nag dadaa aaye lool firi alxuraan xëy na la tax mooy yàlla ci boppam nee na moo ko ko sax moo ko ko jàngalal boppam bu ko see xam nag alxuraan ni nga xam ne moom la feese dell dell dell day daal di xam ne kon ku yàlla mayut lu may xam-xamu zahir rekk jekki di ko firi wóorul ci moom moo tax mu daa aay lool ku toog di ko firi di wax ne yàlla waxam ji nàngam la ca jublu waaye mel na ne bëggoon na ku miin làmmiñu arab wi rawante na luxa ak naxu ba mën a settantal waxi yàlla ji mën di yër téerey tafsir yi di ca dolliku ak xam di ca dolliku dégg di ca dolliku leer di ca dolliku waaru moo tax fu muy diglee fonk xam-xam day njëkk digle ñu jiital yetti xam-xam yi nga xam ne ñooy xam-xami diine muy am yóbbal ci tawxiid ak ci fiq ak ci tasawuf daal cay teg nag digle ñu fonk xeeti xam-xam yi nga xam ne dañoo mel ni ay jumtukaay ndax boo leen xamee daal di géeju ci alquran ak hadis ak xam-xami diine yi dala yomb lool lool ko defee nag mu daal la koy tasaareel ne la mooy naxwoog luxaag xarood ak maxaaneeg yowle muy wey wa faddaloo gënal nañu xillataxaa néewu jàng ga bil fahmi ànd ak dégg min kasaratihaa ci bareem nga bi xëyri fahmin ci lu dégg id tainu ba dana gaar waxi la waxees na ne inna xayra zi tadabburin naka kudul boroomu seetantal laysa lahu de di ko ñeel ajrun ab yool la daal zil qadari fa boroom dogal ba waxi la waxees na it bil xaq ci sofaan ba walakin al xilaaf waaye na wuute ga fii xëyri si daxallumin nekk na ci kudul boroomu xamlu bila xilaafin ci lu benn wuute jàng lu tuuti ci alxuraan te seetantal ko mën caa dolliku ak dégg moo gën jàng lu bare bari ci alxuraan te seetantaloo ko kon koo xam ne yàlla may na ko cër ci xam làmmiñu arab la gën mooy buy jàng alxuraan mu bañ caa sàkku ak gaaw akuk bari tey teelu di setantal ndax mu dolliku ak dégg dolliku xam ne am na ñu ne sax su fekkee ne yow mën ngaa setantal te setantaloo njàng ma doo ci am tuyaaba am na ñu ne it du tee nga am ca tuyaaba lañ gën a jàpp nag mooy du tee nga am ca tuyaaba ndax soo waxan wax ju aay ñu bindal la ca bàkkaar kon nag boo waxee wax ju baax it doonte amoo ca setantal du tee ñu bindal la ca tuyaaba te sax buñ dee nattable des na ko ca bindal tuyaaba am déet boolewuñ ca koo xam ne moom mënuta setantal ni ki koo xam ne day door a tàmbalee jàng bëgg a fer ijji wala koo xam ne daa bëgg a mën maxaarijul xoroof ak nit ñuy tajwiide alxur ak ki nga xam ne day jàng nuñ koy binde moom alxuraan ndax rasmul xuraan ak fànnu boppam la ak ki ko bëgg a mokkal takk ko ci ab dënnam ñoom ñëpp ñu mel nii setantal du leen yomb mbaa du yelloonteeg lañu jublu ci alxuraan ja ñooñu moom ñàkk setantal du tee ñu bindal leen tuyaaba waxoon nañu ne Ahmad ibnu Hanbal dafa gis boroomam ci gént ne ko loo gën a bëgg ñu jaamoo la ko mu ne ko xanaa jàng sama wax ji mu ne ko ndax ku ci amuk dégg moo tax ngay wax ndax ku ci amuk dégg moo tax ngay wax am ku ci amul ak dégg itam du tee mu baax mu ne ko waaw waaw ku ci amul ak dégg it maanaam xam laay wax it du tee mu baax kon jàpp nañu ne alxuraan moom ñàkk a xam maanaama du tee rek nga am tuyaaba ca jàng ga waaye nag koo xam ne mënta seetantal ndax amut gu yeewu ci làmmiñu arab day fexe ba bu dee jàng rek muy jàng njàng mu wér njàng mu teey bañ caa yokk dara bañ caa wàññi dara bañ koo gaawantoo ba mujj lu bare bari ci njàng mi ci araf yeeg sàdda yi du dikk rawante na ci weeru koor wi nga xam ne ñu bari dañu koy naafila ci jàkka yi am na ci ñoo xam ne dañuy dëgg ak gaawant lool ba nañuy taree moom day sorenteeg nam war a selle lool lool lool nag te nag alxuraan kenn sañu koo jàng di ca yokk mbaa di ca wàññi ci loo xam ne yaa koy tey am na it ñoo xam ne nañu mokkale mokkaluk gaaw rabat rekk la nga xam ne nga xam ne bu ñu bëggee ñu teylu jàng-njàng mu tey rek fi saasa ñu daldi gag googu mokkal nag moom taamu wuñu ko képp koo xam ne mokkaloon na mokkal gu demee noonu mokkalu rekk gaawantoo rabat waaye boo ko deful daldi gag da ngay fexe ba am way teg mokkal mokkal gu sell mokkalu benn benn boo waxee baat bee mu teey nga teg ca ba ca des nga teg ca ba ca des kon képp kuy naafila alxuraan ci jàkka yi ci donga yi war naa farlu ci mokkal bu baax la nga xam ne moom lay tari te di ko njàng njàng mu teey tey farlu ci matal rukkoo yi ak sujjóot yi dara bañ caa manqué xam ne baax ga lañ ca jublu jubluwuñ ca gaaw ga wa naqaloo toxal nañu xan waladil xabbaas jële ca doomi xabbaas ja alayhima yal na doole nekk ci ñoom ñaar ridwaanu rabbin naasi ngërëmal buurub nit ñi tafdila rakxatayni gënal ñaari rakka biqtisaadin ci ak diggu doomu maxa tafakkuri ka ànd ak sa xalaat bil fu aadi ca xol ba xalaa qiyaami kulli laylin ci taxaw léppi guddi wal fu aadi te mbir mu xol ba saahin aji jamuj la wala aji juum la bi xaflatin ci càggante fa laazim na nga taqoo ijtihaadan ak farlo ibnu xabaas ku siiw la xabaas day baayam moom mu tudd abdullahi ibnu xabaas nee na nga julli ñaari rakk rek te ànd caakuk teewlu doonte sax ñaari rakk ya yàggaloo ko lool lool dafa digg doomu rek waaye ànd nga caag teewlu xam la ngay wax xam la ngay jàng nee na moo gën nga fanaanee julli guddi gi yépp yépp te amoo cag teewlu kon ci gàttal ibnu Abbas nee na julli ñaar rakk dong te teewlu ko na nga ko war a teewloo moo gën fanaanee julli guddi gi yépp yépp yépp te amoo ca ak teewlu aadaabuha teggii ni jàng alquran nag indal fata fa waaju baax ja ak daymaani kay ko jug daymaan tatahurul badani mooy laabuk yaram wa wal makaani ak béréb ba misluhuma sirum kem la ñoom ñaar tadabburul maana seetantal maanaama maha sakinat ànd akuk dal mahastiya kin ànd akuk soccu suri xaguk yoona leef na ko day wax nag teggi ni jàng alquran ba ci jëkk mooy fexeel ba sa yaram set bañ a taq sobe sa yére noonu béréb ba nga xam ne fa ngay toog di jàng alquran ba tey noonu nga boole ci booy jàng nag def teg ànd akuk dal tey seetantal maxnaam yi niñ ko waxe woon léegi li ci gën tam mooy bala ngaa tàmbalee jàng alquran nga soccu ba sa gimiñ set bañ amee xet gu naqari wa kawnuhu ak nekkam nga mustaqbilan di aj jublu xibla maxa xushoohin ànd ak ragal yàlla mutriqa rësin bir muy aji sëgal bopp bi waqaarin ànd ak wegu laa qudoohin du toroxlu kàddu id ngir yun dabu def na sopp at tafxiimu di jël baat ba ay li mu ci namm ay yaqra am moo di mu jàng xalaa xiraati rijaali ci jànginu góor ña jëxëran ci biral wala yekkunte bu mu nekk xaadiha sawatin di aji toroxlu kàddu kanisa ba mel ni ay jigéen wasi tarannumin ak boroomuk randamtal boroomuk neexantal bi lax niñ ci ak daaj faqisan na nga xiyaas sopp nañu booy jàngal quraan nga jublu xibla ànd ak mokk fi kanam sa boroom xam ne ngay sëgal sa bopp ànd ak wegu ànd ak yaru waaye nag sa kàddu ci boppam moom dañoo bëgg mu dijj bu baax a baax nga jàng ni nga xam ne moom la góor yàlla yi jànge mooy dijjal sa kàddu kàddu gi dëgër bu baax a baax te bañ a mel ni kàddu jigéen nekk kàddu gu xaw a woyof ba tey na moytoo neexantal neexantal gu ëpp ndax dañoo wax ne neexantal yaar la bu fekkee dafa neexantal ba di ci yokk lu ci bokkut ba di ca wàññi lu ca bokk moom day araam bi ci des nag mooy muy jàng di neexantal njàng ma waaye nag taxul mu yokk ca dara mbaa mu wàññ ca dara loolu moom ñu bare bari dañoo dogu ci ne lu ñu sopp la di ca tudd addis ba wax ne laysa minna man lam yataganna bil qur'an ak addis ba wax ne zayyinu al qur'ana bi aswaatikum addis bu njëkk bi boo dee xool ci aljaamihu zaghir dafa wax ne saxiix la axrajahu al buxaariyu xan abi hurayrata addisu ñaareel bi boo dee xoolaat ba tey ci aljaamihu zaghir day wax ne saxiixun axrajahu ahmad fi musnadihi wa abu daawuda wa nasaa'i wa ibnu maaja wa ibnu muy wey xawees naa mën a jàpp ne daal su ma nee neexantal na muy jànge alquran te du ci yokk dara du ca wàññi dara mooy gën ndax sukkandikoo ñaari addis ñooñu wa an yurida ak mu namm wajjaha dil jalaali jëmmi borom màgg ga bihi ci alquran ji bila riyaa ci lul ngistal wanay lil maali ak amu alal bokk na ci teggin jàng alquran na fexe ba jàng mi jàng yàlla rek tax mu jàng rek ngir ñu ne ku neex baat la wala ku mokkal la wala ku fonk alquran la wala bëgg ñu jox ko alal déedéet day jàng alquran rek ngir yàlla dañuy wax sax ci téere fiq yi ne taxaw ci bunt yi di jàng alquran mbaa ci yoon yi ndax bëgg ku la jox alali àdduna lu araam la te it ku mel noonu kenn du ko sañ a jox dara ci alal ndax day mel ne kon danga koy dimbale ci lu araam rawante na nag moom may jàng alquran ja ngir rek bëgg ko jox alali àdduna fa mu taxaw di ko jàng day béréb bu sobe ñu ne loolu sax day daal di xaw a doon ak weddi ak kéefër booy xool ci sara aqrabul masalik day wax naa wa amma qira'atul qur'ani halal abwaabi wa fi turuqi qasdan li talabi dunya fa haramun ولا يجوز الإعطاء لفاعل ذلك لما فيه من الإعانة على المحرم ولا سيما في مواضع الأقدار فكادت أن تكون كفرا والرضا بها من أولي الأمر ضلال مبين وأن يكون أجمنك ذا تأدب دبرومك تجين مع قرآن ربه أن القرآن برومجي كما قد وقع نكمتابه mustaxdiran mbir mi muy aji teewlu fi dihni ci xel ma ni ànnahu naka moom xadara teew na munaajiyal mawla mbir mi muy aji deyaaleeg buur bi wayatloo te muy jàng maa la nga xam ne satara bind na ko wala yekku te na nekk xaar yi andi aji jàng kaman ni ki koo xam ne yaraahu dana ko gis moom yàlla subhanahu sorelal naa ko lépp lu yellu ci moom lay salanaa déet mu nuy ñeel siwaahu kudul moom moom rek lan am mooy lay salanaa siwaahu li ànd man ngir naka koo xam ne lam yarahoo gisu ko bin xay ni ci bët fa innahoo naka yàlla yanzuru dana xool ku la xay nin jëpp jëmm ne booy jàngal quraan na nga fexe ba loo mën a amee ci yar ak teggin rek nga amee ko nga teewlu ci sa xel ne dangaa toog di déyaaleeg sa borom bi nga xam ne li ngay jàng ay waxam la moo ko wàcce ci kim gën a fonk ci mbindeef yi da ngay jàngal xuraan ji ànd ak yaru ànd ak sàmm teggin ba mel ne yaa ngi jàkkaarloog sa borom te it mu wër la ne kat bu fekkee sa borom nekkoo di ko gis tam moom mi ngi lay gis kon nag war nga koo bàyyi xel ne moom mi ngi lay gis jëmm joo xam ne moom mi ngi lay gis te gisoo ko waaye wóor la ne moom mi ngi lay gis moom war nga koo bàyyi xel bu baax a baax kon nag booy jàngal xuraan foo tool da ngay bàyyi xel ci ne yàlla sa borom. mi ngi lay gis ndax moom bu fekkee ne gisoo ko it moom daal mi ngi lay gis moom walaysa tukrahu deful sipp la da siqaati fa ñañ yi dëgërloo xiraatun jàng alquran fii ayima awqaatin ci yu mu ci waxtu jàng alquran moom nee na amul wenn waxtu woo xam ne dañ ko caa sipp waxtu yépp rek nees na caa jàng alquran amal la si ndaal ka nga xam ne manaxa tere na min xaaj jàngal quraan bim ba di xasrin ci gannaaw takkusaan fa inna nax yaxoo naka tereem nga lañ yusma de fu ko dégg ndax xal la laxoo layal na ko bi ànd xaaj naka moom diraasatu ahlil yahoodi mooy waxtu jàngu ñuñ yahoot fam bi dan na nga wacc xiyaasahoo xiyaasam nee na ñu bëgg a wax ne gannaaw takkusaan daal di si jàngal quran seen wax jooju mëtt déglu ndax dañ ko layal ci ne waxtu woowu la yahood yi jàng te kon booy jàng ci waxtu woowu da ngay bokk ak ñoom waxtu loolu nag nee na xiyaas bu yàqu la ndax soo bëgg su fekkee da ngay seet rek yëpp waxtu woo xam nee nañ yahood dajey jaamu mbaa nasaraan nga bëgg a juyoo moom tax nga bàyyi ko ah loolu kon nga dal di bàyyi jaamu yàlla yu bare bare afdaluha gën ji jàngal xuraan maa mooy la nga xam ne fii salaati leyli nekk na ci julli guddi wa jaw fii ak biiram ba al axiri ga aju mujj faqabal na nga nangu xawli sama wax li gën ci jàngal xuraan mooy ngay julli guddi di jàngal xuraan te itam guddi ga lu mu gën a sori jëm ci fajar rek lay gën a baax ndax lu mu gën a jëm ci waxtu woowu nelaw gën a neex càggante gën a bare kon waxtoo ku ciy julli di jàngal quraan lu rëy rëy lay doon waxaagasaani ki ni baynal xishaa diggante gee wal maxribi ak timis wa baxda subahin ak gannaaw suba bind soo sil nuxu bi ci yax yi tànneef ya ba tey diggante timis ak gee taamu nañ lool ku ci jàngal quraan gannaaw boo jullee suba itam noonu sopp nañ lool ku ci jàngal quraan wa yawmal isnayni ak bisu altene wa yawma xarafata ak bisu xarafa wa jumhatin ak bisu ajuma tuma alxamisi top bisu alxamis faarifa na nga xam bisu altene taam nañ lool jàng ci alquran bisu arafa noonu bisu ajuma noonu bisu alxamis noonu wa faddaloo gënal nañu qiraatan jàng bi nazarin ci xool fi mushafin ci ab kaamil xalaa siwaaw ci lulu moom fanzur na nga ko xool liñ gën a taamu mooy booy jàngal quran nga di ko xool te bañ koo tari tari gi baax na waaye nag di ko jàng di ko xool moo ëpp tuyaaba daañu wax lu tax fa kullama qara'ata saa yoo jàngee fii mushafin ci ab kaamil li waji rabbika ngir jëmmi sa boroom ak yow sama mbokk xafafta kon nga wayefal xan waalidayka wali sa yaari waajur fi umuril xabri ci mbiri bàmmeel bi idni dil jalaali ci nammeelu borom màgg ga mbaa ci digalul borom màgg ga duuna nukkurin ci lu genn weddi képp koo xam ne mi ngi jàng alquran di ko xool ci kaamil na ko wóor ne bu fekkoon ne ñaari waajuram ñu nga leen di mbugal ci bàmmeel itam faaw rek yàlla dana woyofal seen mbugal ndax jàngoogee muy jàngal xuraan te di ko xool ci kaamil ba wa man xaraa ku jàng li xuraan yi ñal alxuraan bin nazari ci xool mattaahoo kon xéewale ko rabbul wara borom bindeefi bil basari ci ab gis mu xafifan mbir mu muy aji woyofal an waalidayhi walis yaari waajuram fil xasaabi ca mbugal ga wala yakku naa ni ak doonte dañoo nekk ñoom ñaar finti saabin ci askanu li shirkin jëm ci bokkaaleel yàlla dana kuy jàng alquran te di ko xool faaw rek yàlla may la nga amee ab gis bu neex maanaam yàlla mën na laa may say bët du lëndëm du naqari rawante na gumba yépp yàlla mën na la cee musal te itam moom mi jàng alquran te di ko xool yaari waajuram yi nekk ca bàmmeel bañ leen dee mbugal itam faaw rek yàlla woyefal mbugal ga doon sax ñaari waajur ya duñu di ay jullit dañu di yéefarit faaw rek seen doom jàngal xuraan te di ko xool dana tax yàlla woyefal seen mbugal wajitamaxat daje na yebun fukk ak ñaar mina sax bi ci saxaaba yi xalaa tafdilihi ci gënalam xalaa kasirin ci aji bari xumi la joj jëfeef na ko am na fukk ak ñaar ci saxaaba yi ñu maase ci ne jàngal xuraan te di ko xool moo gën jàng lu bare bari ci alxuraan te xooloo ko moo gën sax yeneen jëf yu bare bare wa baaduhum lenn ci ñoom xàllalahu layal na ko bi kaw ni ca nekk ga ashgala di gën a soxlaal li lisaani ñel làmmiñ wa wal aynayni ak ñaari bër ya wa qalbihi ak xolam wa yadihi ak loxoom wal xijri ak penk ba ma tadabburil maxaani ànd ak seetantal maxnaaya fadri na nga xam mu ne ñenn ñi nee nañu boo gisee ñu wax ne jàng di ko xool moo ëpp tuyaaba moo gën mooy rekk bu fekkee da ngaa yor téere bi di jàng say bët mi ngi xool sa xol mi ngi seetantal sa loxo mi ngi wëlbati kayit yi ak di ko téye mën naa am itam nga teg ko ci sa penk déeb kaamil loolu lépp nag boo ko booleeg xëy na boo dee xool ngay gën mën a seetantal maxnaa yi ñoom nee nañ looloo tax ñu wax ne jàng di ko xool moo gën tari ga boo doon tari moom day mel ni làmmiñu doom muy jël wàllam waaye nag bu fekkee da ngay jàng di xool moom bët yeeg loxo yeeg boo tegee téere ba ci sa penk yépp dañ ciy am wàll te xëy na ci ngay gën a mën a seetantale maxnaa yi bi ngay jàkkaarloog baat yi loolu moo dellu ci xol bi nde fa intakun ndéem dana nekk moom jàng ga xam zahri xaybin ci ak tari am zahri xaybin day firi ci gannaaw ak fàddu waaye tari rek lañ ci jublu ajmaha di gën a boole lil xal bi ñeel xol ba ma tadabburil maana ànd ak seetantal maxnaa ma maxan boole seen minal xiraati ci jàng ga nazaran ci xool bi mushafin ci kaamil fa innaha kon naka moom tafuquha dana ko kawe kama zahara naka mu feeñe ñoom kat nee nañu seetantal gi moom moo ci ëpp solo bu fekkee ne bu ko doon tari lay gën a mën a seetantal kon muy jàng di tari mooy gën xool ca kaamil ba bu fekkee ñoo yemoo képp moom xool ci kaamil bi gën nga xam ne ni muy seetantale moom ci xool gi ak ci ñàkk gee xool ñoo yemoo ci moom dong mbaa bu dee xool lay gën a mën a seetantal waaye bu fekkee ne bu dee tari lay gën a mën setantal kon tari ga day daal di ëpp doole jàng di xool ca kaamil ba fa xadamu nazari ñàkk a xool ku la yowmin ci bépp bis fii mushafin ci ab kaamil kuriha sibeef na ko xindal xaw mi fa nit ñu baax ña id ngir nadaratun ab xool waaxidatun bu di benn fil mushafi ci kaamil ba toxaddu def na ko lim qurbatan mu di ak jaamu bi xawli salafi ci waxi dawal ba mu ne nee nañu sib nañ nga xëy ba jant bi so te say bët teguwut ci kaamil xëy ba jant bi so te xoolub kaamil daal loolu nit ñu baax ñi taamuñ ko ndax nee nañu jekk-jekk ne jàkk ab kaamil xool ko kese xoolu kese gi rek ak jaamu yàlla la moo tax nag kon xëy ba jant bi so te xoolub kaamil daal moom sib nañ ko waxtale foo wuute nañu xel afdalu ndax la gën ak tartiilu mooy njàngum diibal aw xak suxo wala safaanam ba te kulun kenn ku ci nekk lëxoo ñeel na ko dalilun tegtal dañoo wuute ci booy jàngal xuraan nga di ko jàng njàngum diibal ko teylu ko bu baax a baax ak rabat rek noonu wéy bañ koo diibal yooyu yaar lan moo ci gën dañ cee wuute warattil qur'aana wax yàlla ji mu ne warattil diibalal al qur'aana al qur'aan tartiilan ak diibal jalaafeeñ na dalila tartiilin mbir mu muy layu tartiil li man ñel ka nga xam ne xadd faddala gënal na ko ñu wax ne booy jàngal qur'aan diibal ko moo gën dañoo sukkandikoo li yàlla ne warattil qur'aana tartiilan di ko jàng di ko teelu di ko diibal bañ koo gaawantoo moo gën wal amru digle ga bi zikri ci tudd yàlla ga al kasiir ga aji bari al aayata motti laaya ja dalilu xaksihi mooy tegtalu safaanam iqtafi na nga xañtu ar riwaayata nett li wax mu ne suñu borom bam ne yaa ayuha alladina amanu dukrullaha zikran kasira wa sabbixoohu bukratan wa asila digle gi mu digle tudd yàlla gu bari moo wane ne kon booy jàngal xuraan da nga koy rabat mu gaaw ndax li ngay tudd yàlla bari ndax boo ko diibalee du baree ne boo ko doon gaawal moo tax ñëw ñu leeral lanu waxoon ne dañoo wute ci booy jàng alquran di ko diibal muy yéex ak di ko rabat muy gaaw lu ca gën ndax day mel ne lanu aaye woon ci jàngal alquran di ko gaawal kon teewul am nañu ko taamu li ma ta leeral foofu nag mooy bu ñu nee gaawal ko rabat ko am nañu ko gënal itam gaawal ga ak rabat ga du tee rekk araf wu ne ñëw nam bu war a ñëwee dara bañ caa des kon jàngi ni alxuraan yi dafa nekk ñett bu njëkk bi moo tudd at taxqiiqu at taxqiiq nee nañu moom la yonent bi daan jànge mooy nga diibal ko yéexal ko di ko teeylu di ko jàng araf ci gannaaw araf araf yépp teqalikoo ci ni ngay jànge bi ci topp mooy alxadru alxadru moo di ak gaawal bi ci mujj at tawassutu moo di ak diggu doomu kon jànginu alxuraan ñett la yeexal ko ak gaawal ko ak diggu doomu bañ a gaawal bañ a yeexal dañoo wute nag ci yeexal ko ak gaawal ko lan moo ci gën waaye boo déggee gaawal ga rekk mooy loo ko gaawal gaawal du te araf wu ne nga jox ko àqam indi ko ba mu mat sëkk ñi wax ne gaawal ga moo gën dañu ne suñu borom moo digle ñu koy tudd moom yàlla tudd gu bare bare te alxuraan moo féete kaw ci mboolem xeeti tudd yàlla yi te kon nag soo ko dee gaawal la ngay jàng di daldi gën a bari nga gën a bari tuyaaba ndax li yonante bi waxoon ne ku jàng wenn araf ci alxuraan ñu bindal la ci aw yiw te ni suñu borom waxee yi wu ne da koy ful ba muy fukk mu ne duñu ne alif laam miim benn araf la dañuy wax ni alif araf la laam araf la miim araf la man qaraa xarfan min kitaabillahi taala falahu xasana wal xasanatu bi xashri amtaaliha la aqulu alif laam miim xarf walakin alifun xarf walaamun xarf wa miimun xarf loolu kon boo ko déggee day mel ne boo dee jàng ngay gaawal njàng ma moo gën waaye nag li tax nu leeral loolu rek mooy booy gaawal itam na araf yépp ñëw arafu ne nga jox ko àqam